léeg-léeg fee rek ci kanamu ngoraan bi lay jaar lu d'abord en réalité un bassin là vous voyez derrière la mosquée là-bas nous allons réaliser là-bas deux bassins pour diminuer le volume d'eau nous devons également retenir de réaliser deux bassins de deux hectares de 4 hectares de 4 hectares de 5 hectares également mais aussi l'exploitation et l'écologie et l'écologie. Mais on est en train de faire le maximum de passer par là. Mais la solution structurelle est moins pour nous, c'est de libérer le peuple de la communauté.

Non, non, je suis un maire. C'est avec le préfet. Le préfet, non, Thank you. C'est bon. Euh, national euh, set setal avec le Premier ministre, euh, M. Ousmane Sonko, en visite ici à Sangalkam, dans la commune de Sangalkam. Lui aussi, il va se mettre à l'œuvre Le, le Premier ministre euh, Ousmane Sonko, ici aujourd'hui à Sangalkam, accompagné des ministres Cheikh Tidiane Dièye, mais aussi du ministre de l'Éducation nationale euh, Moustapha Guirassy, Daouda Ngom, ministre de l'Environnement. Je rappelle que nous sommes ici à Sangalkam présentement pour la journée nationale de Set Setal, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui à son tour a la suite euh, du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président Bassirou Diomaye Diakhar a déjà donné le go de cette journée historique qu'il se veut qu'il veut euh, euh, le premier ministre Ousmane Sonko a le mi ngi noonu le président Ousmane Sonko ñu yor euh, li nga xamante ni moom moo di bi parce que yéen commencé liggéey bi fii nii nga xamante ne moom moo di euh, commune bu Sangalkam ànd ak ministre euh, bi nga xamante ne moom moo di Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ministre Daouda Ngom ministre bi ngi noonu premier ministre ngi di rato mi rato waaw ministre ngi noonu premier ministre ngi noonu waaw premier ministre ngi noonu waaw tibb na ko tibb ko le premier ministre Ousmane Sonko à

reboisement bi da ci am solo bu baax a baax le premier ministre mi ngi reboiser euh, accompagné du ministre de l'environnement mi ngi noonu le premier ministre et les services des eaux et forêts ndax itam euh, ku ni nañu bale ñu raxas euh, ba dëkk bi set ñu mën a wax ni itam nañu jëmbati ay garab ñu waajal nawet bi le premier ministre Ousmane Sonko Le premier ministre Ousmane Sonko accompagné des services des eaux et ak ministre Daouda Ngom mi raxas loxo yi na garab gi ba ministre le premier ministre premier ministre a ngi noonu waaw ah, service eaux et forêts bu Bambilor la àndal waaw ah, mi ngi noonu premier ministre jëmbat na garab gi garab gaa ngi garab gaa ngi moom la premier ministre jëmbat fii nii avec les services des eaux et forêts bu Bambilor le premier ministre Ousmane Sonko ngi noonu ànd ak le ministre Daouda Ngom Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Tidiane Dieye ñu ngi mu di journée nationale bu set setal ñu ngi waaw la protection premier ministre gi noonu garab gi mu jëmbate gi ak Cheikh Tidiane ministre de ak comme je disais tout service bu eaux et forêts jëmbat toppatoo ko arrosé ko protégé ko premier ministre ngi noonu fas yéene somp li nga xamante ni waaw garabu président Ousmane Sonko mi ngi noonu fii nii ci Bambilor le premier ministre ànd ak Cheikh Tidiane Dièye ak le ministre Daouda Ngom l'environnement et l'assainissement qui se donnent la main pour euh, un avenir meilleur respectueux de l'environnement donc euh, nañu def le ministre Daouda Ngom joxe na instruction yu ferme na on plante on protège

waa ji daal léegi jóg waa ji daal léegi jóg. ngeen di jóg ah mi ngi noonu mi ngi noonu on a du monde qui est venu accueillir le DG de l'ONAS Cheikh Dieng là <laughs> Lui aussi, il est à l'œuvre à l'image de son euh, de sa société. ONAS ONAS yéen a ngi waajal nawet bi bu baax a baax. mais tout à fait nous sommes en train vraiment de terminer le curage de des des, des canalisations. Mm-hmm. d'appuyer surtout et ça le premier ministre l'a demandé. mm d'appuyer les communautés. surtout aller résolument dans une démarche. Mm-hmm. Mm-hmm. des populations pour prendre en charge la problématique. de, le, euh, des activités de prévention contre les inondations. Et nous allons ajouter une innovation, c'est la mise en place d'une brigade d'intervention rapide assainissement, mm -hmm. accessible par un numéro vert à ONAS. Mm -hmm. la page a 1 million de vues, si vous pouvez donner le numéro. Donc le le numéro c'est 81. oui 810 12. 81 810 12. 810 brigade d'intervention pour lutter contre les inondations. En, en appui donc aux populations qui nous sommes proches de la Tabaski, nous avons déjà quasi terminé le des canalisations. Que les restants de la Tabaski ne soient pas déversés dans les canalisations, ça nous mhm. courons et je voudrais faire appel au sens civique et citoyen mhm. des Sénégalais pour nous aider à préserver les canalisations. Euh, euh, public à l'information à travers la page du premier ministre euh, Ousmane euh, Sonko tey ñëpp a war a booloo c'est le peuple ensemble tous les services de l'État qui se mettent ensemble pour aujourd'hui se donner la main dans la main pour euh, définitivement gérer ce problème d'assainissement ce problème il est là le président, le premier ministre Ousmane Sonko le Premier ministre qui s'entretient avec les autorités, euh, le gouverneur, le préfet. Il s'entretient avec l'administration territoriale sur les problématiques de cette localité. Je rappelle que nous sommes à Sangalkam, dans la commune de Sangalkam. Le Premier ministre qui prend les informations. Comme je disais tout à l'heure, il est accompagné des ministres Daouda Ngom et du ministre aussi Cheikh Tidiane Dièye caméra yi ñëw leen doo ma gënal arrière ak tout ça bàyyi bàyyi bàyyi ko arrière neef arrière di nga ñëw di nga ñëwaat di nga ñëwaat di nga ñëwaat teewul ma ko teewul ma ko dama fàtte woon micro bi teewul teewul ma ko. na ñëpp arrière encore. non di nga am di nga di nga dugg. Babacar Babacar Babacar. kay kay. C'est bon voilà mën ngeen kii noonu On va passer. Não, kon da ngay kon da ngay jox ko moom waaw nag Pape Diakha mi on va s'organiser on va tous parler en même langue xaaral kenn kenn dina ko ñëw Pape ini ne ini Pape wàccal wàccal

a taxawee pour ma am son bu baax ma war a taxawee côté pour ma am son bu baax. c'est bon derrière. après dinañ après dinañ andi APS andi. yaa moom APS APS kay Saare Cette journée marque quoi dans cette étape d'assainissement du Sénégal conceptualisé et lancé par son excellence le qui dans le cadre du volet de son programme a inscrit des actions citoyennes qui permettent à différents segments du peuple, notamment des segments civils et militaires, mais au sein des segments civils, toutes les composantes, de pouvoir communier pour euh, l'action des politiques Et en l'occurrence, pour cette des actions de nettoiement et de curage en prévision de l'hivernage. Le président de la République a voulu mobiliser d'abord, se mobiliser d'abord lui-même, mais ensuite mobiliser l'ensemble de son gouvernement et l'ensemble des autorités administratives et politiques pour donner l'exemple. C'est pourquoi ce matin, il a été le premier à à être sur le terrain et à poser des actes allant dans le sens souhaité. Donc moi, je suis là aujourd'hui, accompagné de membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Urbanisme et le maître de, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique qui est le maître de cette journée, entre autres. également beaucoup d'autres ministres, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Environnement, monsieur le gouverneur de Dakar, monsieur le préfet du département de Rufisque, le sous-préfet également, et l'ensemble des autorités administratives nous avons fait le choix de venir ici parce que ce quartier présente, l'ensemble de cette zone présente une spécificité qui va au-delà de l'activité de purage. c'est une zone qui souffre de la problématique des occupations anarchiques et notamment sur ce qu'il est convenu d'appeler les zones non édificantes, c'est-à-dire des zones qui avaient été désignées par les experts comme ne devant jamais euh, faire l'objet de lotissement, a fortiori d'habitation. Parce que ces zones-là constituent des voies naturelles de passage des eaux pluviales, mais quelquefois c'est des zones même lacustres. Il y avait, dans le temps où il, faisait, où beaucoup, il y avait de petits cours des lacs, euh, en tout cas des, des, d'eau à temps Cette zone en est la parfaite illustration. Si vous rappelez bien, lors du conseil interministériel consacré à la prévention et la gestion des inondations, j'avais particulièrement insisté sur ces zones. c'est pourquoi j'ai considéré que symboliquement, il fallait en choisir une. Et Kaoussara et environ en font pour venir délivrer un message. Le message, il est très simple. C'est que on ne peut plus continuer à laisser la prolifération d'habitations dans des zones comme c'est que, quels que soient les moyens extrêmement importants que l'État peut

Euh, cités qui sont construites dans des voies de drainage des eaux à travers le Sénégal. Et on nous dit que presque la moitié se trouve dans le département de Rufisque. Et nous ne pouvons plus continuer à laisser faire. Parce qu'un quartier ne se construit pas à nos jours. Une maison même ne se construit pas à nos jours. Si on en est là, c'est que quelque part, il y a eu défaillance et carence des services qui ont laissé souvent sans titre ni sans aucune autorisation de l'urbanisme, que des gens puissent construire jour après jour, semaine après semaine, pour voir naître des quartiers. Et après, ça pose la problématique de la gestion de ces quartiers-là. Les conséquences, particulièrement pour Kausara, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont obligés même de quitter pendant l'hivernage. Il y a, je crois, minimum 8 familles qui ont définitivement quitté pour aller chercher Les édifices, mosquées et autres sont complètement pris, par les eaux. Et même les installations qui ont été pour le drainage de ces eaux, pour le captage de ces eaux-là, sont quelquefois occupées. Même le poste Sénélec, le seul poste Sénélec qui était là, a été déplacé parce qu'il y a eu un incendie, me dit-on, consécutif à justement l'effet ou l'impact de ces eaux. C'est des désagréments qu'on aurait éviter. Nous n'avons pas de solution immédiate. Nous allons faire le maximum et notamment nous annonçons euh, ici aux populations que euh, un bassin va être construit ici euh, en collaboration avec l'armée nationale pour gérer déjà cet hivernage, un bassin de captage et de rétention des eaux en espérant que ça va pouvoir atténuer très fortement l'impact de ces eaux sur les habitations. C'est entre autres une solution, provisoire. Et comme l'a dit le président de la République dans son programme, si vous allez à la page 60, il clairement dit que la gestion globale de ces questions doit faire l'objet d'une planification sérieuse sur le long terme qui intègre une planification globale en termes d'urbanisme et qui intègre la problématique de, drainage des eaux, du captage des eaux et la problématique de l'assainissement de manière générale. Monsieur le ministre est ici présent avec toute une équipe pluridisciplinaire. C'est vous dire qu'il y aura des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est à cela que nous appelons euh, les populations. Le gouvernement doit être accompagné. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, mais si tout le monde se, si et seulement si tout le monde se donne la main et qu'on s'oriente vers le travail. Nous allons assainir, structurellement, nous allons assainir humainement et ça nécessitera la contribution de tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons, euh, le président a mobilisé les armées, il a mobilisé l'ensemble des services euh, dédiés à ce genre d'activité, mais il continue à lancer un appel aux populations parce que cette activité doit être pérenne. On dit souvent qu'au Sénégal, nous savons prendre des départs, mais nous n'arrivons jamais au but. il faut aujourd'hui que chaque mois, cette formidable mobilisation que nous avons vue ici et que nous avons vue partout sur le chemin que nous avons emprunté, que nous avons vu sur les images aujourd'hui avec le président la République, il faut, il faut qu'elle soit maintenue, que nous comprenions que nous sommes maîtres de notre propre assainissement, de nos quartiers d'abord, parce qu'en prenant soin de nos quartiers, on prend soin de nos enfants Euh, dans les rues de ces quartiers-là, nous prenons soin de notre hygiène. Et c'est en cela que le concept de citoyenneté et de civisme, mais le concept également darmée ces concepts sont extrêmement importants et sont au cœur de notre programme. Je terminerai par dire qu'aujourd'hui, au 1er juin de l'année dernière, 2023, je crois que nous étions dans une configuration totalement différente. Où un peu partout dans le pays, au lieu d'activités citoyennes et donc porteuses de progrès, porteuses d'espoir, mais également de, plus-value pour les mm. populations et pour la nation, on était confronté malheureusement à une autre situation où c'est peut-être des grenades lacrymogènes et des pneus qui, étaient, brûlés. Je voudrais dire aujourd'hui que cette œuvre d'assainissement cette œuvre de, de elle sera globale. Je veux dire à tout le monde, particulièrement à ceux qui ont été victimes de ces situations-là, qu'en aucun cas, nous n'oublierons ce qui s'est passé. Et que toute la lumière, toutes les dispositions seront prises pour que la lumière soit faite et pour que plus jamais nous ne soyons obligés de vivre cela. le travail d'assainissement, comme je l'ai dit, il est global. Pour aller vers certaines directions, il faut assainir la présidence de la République, il faut assainir la primature et le gouvernement, il faut assainir la justice, il faut assainir euh, l'administration, il faut assainir l'ensemble des facteurs qui contribuent à aller positivement dans une direction ou très négativement dans une autre direction. C'est cette d'assainissement qui est en tout le monde ce qui doit être fait sera fait pour que la lumière et les responsabilités soient établies et que pour que plus jamais nous n'ayons de 1 juin non pas consacré à des œuvres d'utilité publique, mais beaucoup plus à faire face à des situations de, euh, très désagréables le pays. ma baam ko ci wolof ne ñoo ngi gërëm ñëpp ci tertu bi di gërëm Sangalkam Eh, di am mbégte ci teew fii ci bés bu ni mel muy bés bi nga xam ne son excellence monsieur le président la république Bassirou Diomaye Faye daf ko lancé woon daf ci woowoon sénégalais yi sant yàlla bi ko sénégalais yi wuyusee ndax monsieur le ministre bi ngi may wax ni ñoo ngi jot remontée yi ci Sénégal yëpp mobilisation exceptionnelle la sénégalais yi def ci wuyu si appelu monsieur le président la république ma wax ni man mi bi may ñëw maa ngi doon xool yenn image yi gis naa ni amul région bu des amul département bu des ñu am mbégte teew fii ak euh, ànd ceeg lenn ci membre gouvernement bi monsieur le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement mi ngi nii monsieur Cheikh Tidiane Dièye monsieur Daouda Ngom ministre de l'environnement monsieur Guirassy ministre de l'éducation nationale mi monsieur le gouverneur de la région Dakar mi ngi fii monsieur Sall monsieur le préfet du département de Rufisque je le sous-préfet de l'arrondissement lii buñ ko defee nii dafa fekk monsieur le président de la République moom ci boppam moo bëggoon mboolem seen ñu yor ndomb tànk ci réew mi njëkk a joxe exemple parce que askan boo ko bëggee yóbbu ci direction da nga ko fa war a jiitu waaye doo toog ci bureau taal sa clim ne ko demal def moo tax moom ci boppam moo njëkk a génn tey fële ci caaro yi gis ngeen taxawaay bi askan wi génn wuyu si ko mu njëkk a symboliquement def premier geste buy wane ni fii la ñu bëgg a jëm ak askan loolu nag ñun ñu tàmm woon ñëw fii lu tax mooy am na loo xam ne problème mu assainissement ordinaire la mooy quartier boo xam ne quartier bu normal la quartier bu ñu tabax fañ ko war a tabax la waaye defuñu fa ay canalisation wala canalisation ñu fa def baaxul wala doyul wala yu mel noonu ba quartier ba di am ay problème loolu mooy li gën a yomba a ci mbirum assainissement moom beneen fànn boo xam ne dañoo dem fa ñu warul tabax nga xam ne depuis jamono tubaab bi tubaab bi mu defee cartographie ba pare la wax cadastre bi dafa ne fii de nit mën na fee dëkk waaye fii nit waru fee dëkk parce que yoonu ndox la te olof danaan ndox du bàyyi yoonam mun nañu nekk jamono sécheresse taw gi xawoon néew lu dem ba fu ndox doon jaar jaaratu waaye bu taw dellu see rek ndox mi dellu siwaat ci yoonam moo tax ñu ne woon fii ak fii ak fii kenn waru fee tabax ñu gis ni Sénégalais yi ci li nga xam ne moom lañuy wax urbanisation parce que de plus en plus jamono euh, ci àdduna yëpp la nag jamono léegi kaw gi day wàññeeku nit ñi di dem ci taax yi loolu la ñuy wax urbanisation ñu gis ni ci phénomène boobu nag nit ñi bu ñu yegsee ci taax yi léeg-léeg mënuñu am ci foofu nga xam ne moo jag pour nit ñi dëkk fa dañuy dem fekk fa ñu tere woon pour ñu dëkk fa ñu dem dëkk loolu nag bu amee responsabilité état la d'abord ndax kër sax mur sax mur mur de clôture kenn du ko tabax ci benn fan ko tabax ci benn semaine waxuma laa kërum lëmm waxuma laa quartier lëmm donc soo seetee lu mel ni quartier bi soo xoolee immeuble bi nekk suñu gannaaw xam nga ne lii ay weeri weer wala ay at lañ ko tabax jamono yooyu ñu ko doon tabax ñan ñoo joxe autorisation ak ba ñuy joxe autorisation bi ndax daf leen réeroon ni fii yoonu ndox la waruñu fay joxe autorisation pour ni li mel quartier bee nekk suñu gannaaw ñëpp xam nañ ni ke ñëwul rek juddu ci benn fa lu ñu tabax la ci ay fani fan loolu lañ ne nag loolu dina takk mënatuñu nangu administration am code de l'urbanisme am code des domaines am les plans euh, directeur d'urbanisme am les plans détaillés d'urbanisme am lépp ñu ne leen fii nit waru fee tabax ñu seetaan ko sàggane ko léeg-léeg sax ñoom ñooy def lotissement bi tax nit waru fee tabax loolu am na problème ndax fee quartier la mais fii ni terrain yi bi lotissement privé la promoteur privé boobu même su dee titre foncier la am kan moo ko jox lotissement pour mu def lotissement foo xam ne leer na ni fii waruñu fee def kon yooyu ay problème yoo xam ne lu jëm ci responsabilité état la te bu soobee yàlla nañ ci jël ay matuwaay ñaareel bi mooy mënatuñoo nangu di seetaan nag moo tax keroog ci conseil interministériel bi ma joxe ndigal ne leen fépp foo xam ne tey quartier bu ni mel la la fa nekk ñu koy tabax nañu dem arrêté ko parce que état léeg-léeg il faut mu jël responsabilité bi mais doo seetaan ba musibaam ngay doog a daw naan nañu nañu an ba loolu il faut mu jeex ci réew mi tamit loolu tax ñu ñëwoon fii tey solution rek dina jafe liggéey la loo xam ne du ci euh, lu gàtt gàtt lañ koy def ndax foo xam ne dafa nekk ci pax wala mu ne ci kan wala mu ne woon yoon ndox wala ndox daan fa taa sax ay lag ndax lag de guerre mi ngi fii jege na fi. Lac Rose Lac Rose du moins mi ngi fii. te bi état defee recensement gis nañ ni lu mat ñetti junni ak genn wàll lu ëpp lool ci yu mel ni am na ci biir Sénégal te li ci ëpp nag mi ngi fii ci département Rufisque ñu ne nag dañ ci def ñuy kéem kattan ci ay programme yoo xam ne lu ñuy def la ci temps bi waaye ren ren tembe lañu ñu mën a def moo tax ñu dugal armée ci mbir mi moom ministère am ak ñi ciy liggéey nañ lënkaloo ak armée nationale gas fii benn benn dañ koy waxee bassin bassin dañ koy waxee ci wolof. mbalka mu mag la. voilà benn mbalka laa doon yarkatu xar yi ñoom ah, xam benn mbalka bu mag a mag a mag boo xam ne dañ koy def ci fi nga xam ne moo gën a xóote nga xam ne ndox mi bu ñëwee dañ ko essayer récupérer foofu am yaakaar ni loolu mën na wàññi problème bi ci at wi ndox moomu sax mun nañ ko jërëñoo ci yóbbu ko ci mbay mi moo tax ñu ne fii am na yeneen yu ñuy gas fii ci dag bi ndax am na dag bu ne fii bu ne dag nag mooy domaine agricole communautaire kon kuy bay da soxla ndox ndox moom ñu doon bàyyi muy muy law di walangaan wala mu ne ci biir kër yi lañ ci mën a capté dañuy def ay bassin foofu ci dag bi récupérer ko nit ñi mën koo utiliser même bu nawet bi jeexee dinañu am ñaar ñett ñeenti weer yoo xam ne peut-être mën nañ koo utiliser pour di euh, arroser seen maraîchage la kon loolu moo gën a moo gën a bëri fii kon loolu moo taxoon ñu ne dinañ ñëw fii di lancer appel nag Sénégalais yi bëgg dëkk warul tax nga dëkk fu ne fii bu nawet bi xasee ba door am na population yoo xam ne dañuy obligé génn dem uti feneen wala ñu dem seeni i mbokk ba nawet bi jeex am na ay famille yoo xam ne dem nañu définitivement ndax mëntuñ fi def kon loolu ta soo seetee xaalis bu bëri lañ fi investir am na ñu fi def ay millions yi millions ci kër goo xam ne mënoo fa dëkk euh, au moins ñeenti weer ci at bi loolu nag ñuy lancer appel population yi ñoom it ñu jàppale ñu ci loolu ndax président Diomaye dafa ñëw ne dafa ñëw pour bale moo tax bale boobu ngeen gis ko ci moom bale bi nag dinaa wax tey lan mooy cosaanu bale bi ndax sénégalais yi gis bale bi rek waaye xamuñu bale bi bi ñuy nekk campagne Bignona bi ñu paree meeting Bignona bi une heure du matin wala lu ko raw nga góor gu màgget a màgget dañ ko jàpp sax wam mat ko mu ñëw ba sës ci oto bi maa président Diomaye sëgg di wax ak moom mu ne ma neel ma ko bale bi waa dëkk bu ñuy wax jéegul mhm. ñoo daje ñaanal ko wàcc seen kaamil def li ñuy def bu ñu paree jël bale bi jox ko ne ko boo duggee pale na nga jël bale bi bale pale ba mu set na nga jël bale bi bale Sénégal ba mu set na nga jël bale bi bale Afrique ba mu set loolu mooy cosaanu bale bi looloo tax président Diomaye fonk bale bi loolu nag mooy volet symbolique bi waaye bale googu ñu nekk dooraguñ ko sax ndax lii defe naa premier acte rek dinañu bale lu jëm ci cet bi dinañu bale lu jëm ci lu ñuy gis ci ay kër ay yoon ay caniveau ak yu noonu waaye dinañu bale lu jëm ci nguur nañu bale ba mu set wicc ndax réew mi it yi dañoo xamul ni yàlla moo ñu sutural waaye ak ñaanu nit ñu baax la waaye bu dul woon loolu 2023 bi ñu génn réew mi li daal réew yu bëree bëri mënoon na fi am te dara waralu ko lu dul ku ñu dénk ne ko dañu laa dénk pour nga sàmmonteeg réew mi sàmmonteeg askan bi doxal yoon nga def safaan moo xam président nga moo xam ministre nga moo xam magistrat nga moo xam moo xam tax boo bëggee nag bale boo yaakaar ni bale mbedd mooy moom rek la war a bale jumb ndax nëgëni si dem euh, euh, daaw ci bësu tey jii di premier juin nit ñi tàlluñu woon bale ak ji ay garab waaye ñi ngi doon ay jeune ak ay pneu ak internet bu ñu coupé te dara waralu ko lu dul ñu ñu dénk ne leen jaara leen ko fii ñu bako fa nekk ci ay complot ak ay règlement de compte moo tax bale googu nag may dalal xelu senegale yépp lañ ci war a def nañ ko def mbir mi dina leer nañ ba ñu xam ku def ak lu mu def bu dee soo Sonko def Sénégal yi nañu xam bu dee keneen ak keneen def Sénégal yi nañu nañu xam waaye nag dafa am loo xam balaa nga koy def dangay ngay njëkk a bale ba mu set il faut nga bale justice ba mu set ndax ku ci amoon responsabilité te nekk ba du moom mooy ñëw jaar ci beneen direction il faut nga bale palais de la république il faut nga bale gouvernement il faut nga bale feneen ak feneen ak feneen kon set setal bi set setal bu yaa lay doon set bu mate lay doon parce que réew mi il faut ñu tegaat ko ci yoon ba Sénégal yi nekk ci jàmm ñu jublu ci liggéey xaste bi jeex fi saagante bi saaga saagawaate bi jeex fi sosalaate bi jeex fi parce que loolu xamuñu koon ci senegal Sénégal jàmm nañ fi xam ak liggéey ak même su dee bokkuñu xalaat ñu def ko ci adversité et non pas ci animosité loolu moo tax ñu wax sénégalais rek ni set setal bi lu gën a yàgg la mm. waaye bii moom lañ leen gën a soxlawee bii la ñu gën a bëgg ñu dugal ci seen loxo la ca des jafewuñu te dinañ ko def bu soobee kon ñu ngi gërëm ñëpp di am mbégte ci mobilisation bi ñu fi gis bëggoon nañ dugg ci biir quartier bi waaye gis nga mbir bi nu mu mel dañuy bañ buuxante yi ak yu demee noonu ñu ngi jéggalu kilifa yi nekk ci biir quartier bi chef de quartier bi di jéggaloo Euh, village yi ne ci gannaaw chef de village yi ñoom seen mm. dignitaires yi fi nekk it ndax fii am na ay dëkku lébu ndax mm-hmm. wax dëkku lébu wax ay dignitaire mm-hmm. ñoom ñëpp ñu leen di jéggalu bëggoon nañu dugg saafante ak ñoom mm-hmm. waaye comme bu xante bi dafa xaw a bëri ñoo ñu jaral ko beneen bés boo xam ne dinañ jël matuwaay yu gën a bëri ñëw ziar leen bu baax a baax ñu ngi leen gërëm leen sant c'était le premier ministre Ousmane Sonko un message à son